nuy naa ñëpp fii laay tàmbali yéen ci seen revue de presse sa kaas kafe nga guux bala ngay naan bay simbalee xuma xew ci réew mi askan sunu gaal gi yëglekaay gi ne ñu bari ci réew mi daanaka dem nañ ba pexe amatunu ko ndax ay jafe-jafe téer bii de yëglekaay gi ne dem na ba daanaka leen rek la jàpp ne mooy pexe moom day doom ja feebar yëglekaay gi ne ca hôpital ba mu ne fa doom ja war a faju yëglekaay gi ne ay médicament yu ni mel yooyu yëpp doom ja daal di ko moom téer bi xool xool xamul nu muy def mu dem ci biir hôpital bi ne day sàcc yëglekaay gi ne loolu dee tax lu mooy le peuple quotidien yëgle kaay ne moom moom ci jëmi boppam kay malade ci nekk ci seen lali hôpital la doon sàcc ngir rek lu mën a faja doomam tëtëtë ca kër médica day yëgle kaay gi ne ñàkk nañ seen ñaari doom yoo xamante ni ñeenti at képp rek dong la ñu am la ko waral de du leen lu dul lakk gu yéeme te doy waar gu metti lool gu jëfa fa fi moo fa am ak fii réew mi toll ñuy wut lu ñu am di lakkale moo xam ñun fu ñu jëm nan dem ci commune dem Kane département Kanel yëgle kaay gi ne am na benn waay bu fa faatu de mort par noyade ñu de ñoom nee ñu lu jiin njaag policier yi jaag ñoom day nee ñu noo faat waa ji manifestant yi policier yi la ñu ba noppi nag daal mer ba futu wëlbatiku rek simbraan yéyu rek siisu wax wuuti li nga xamante ni moom mooy institution publique de la ville de Demba Kane bawuñu dara de lépp lu ñu jàpp ni rek c'est public ñoom day fexe nañu lijjanti ba daal di tasaare lu njort ni bu nu wëttiwul dina tas tasaar crédit mutuel du Sénégal la ci réewum askanu ne ma moo ñoo jafe-jafe xaalis compte yi libération yëgle kaay ma ci crédit mutuel du Sénégal un carnage financier organisé alal crédit mutuel du Sénégal Malick si ci jëmi boppam 108 du groupement féminin yu asukunta dañ leen a de détourner lu tolloog 540 millions de francs CFA te di leen wax ay aide financière ak lu kenn xamul ku ne jot 200 000 francs CFA en or ba waaw jaaykatu or ba ci jëmi boppam ay prêts sur gaz yu doy waar scandale bi moom dina lool tar ci ñoom ay ramification interne yu doy seen biir ci lii <laughs> ca crédit mutuel du Sénégal ba ne ca Tivaouane yëglekaay gi ne ma 810 ma moom kay mi rek ñeneen ña nekk ci ay jafe-jafe yëglekaay gi ne ma waa Sonacos luy wuyoo situation de faillite ba ma indil de bés bi la jour yëglekaay ne ma am nañ ay jafe-jafe rek collecté li nga xamante moo di gerte gi ña fay liggéey nekk ci ay jafe-jafe yëglekaay gi ne ma kaay ma nag vingt milliards la ñuy pour mën a huiler li nga xam ni moo di société bi lée en tout Kibili Touré moom ci jëmi boppam ma ngay recevoir syndicaliste yi ni ki tey ci suba si ma yow sunu réew mi dee nga mel ni màgget foo laal mu ñuuji foo bës mu ne ah foofu fay métti yëgle kaay ni ma feneen fay métti nañu dem seeti waa carburant ñoom ci seen jëmi bopp de nee ñu bu nu wattuwul ñoom itam ñu ne ci ay jafe-jafe tey la jafe-jafe nag la ko nar a indi ci wàllum carburant ci réew mi askanu sunu gaal gi lee lu dul cent quarante milliards bor bi lee nu production pétrole bi l'indépendant kaay ne ma pétrolière yi ci jëmi boppam ñoom ña ngay réclamer état bor bi nga xamante ëpp na daanaka milliards de francs CFA ay bu ñu wattuwul sunu carburant bi dina am ay perturbation ci réew askanu sunu gaal gi la nag teewul ña liggéey de l'indépendant yëgle kaay ne ma aéroport international Ousmane Masseck Ndiaye ba taxaw na ku ne xam na ni am na programme boo xam des koo ngir rek daal di ay aéroport de milliards francs CFA lees ko defare ay waay yow Ousmane Masseck Ndiaye lees ko di pay ancien premier ministre ak maire Abdoulaye Dieng njiital AIBD grand pral yëgle kaay ne ma yëkkati na ay kàddu nee na Saint-Louis nag ku ne xam na ne dafa boole ñaari mbil ville touristique la ak économique waa Saint-Louis eh waay aéroport Ousmane Masseck Ndiaye désormais opérationnel mani jas yóbbulu ko dara item de dara la laas yëgle kaay ma waaw coopération France Sénégal les heures waa France ngay assuré PM antenne quotidien yëgle kaay ne ma cinquante six convention de financement signé ma ni ko montant ba ñaata la mu ni ma mille quatre milliards de francs CFA waaye lii gën a am solo te yee Amadou Ba ngay joué rôle après deux mille vingt ku jóg nag ci opposition bi daal di ko gisee loo xamante moom jàpp na lii du yoon moom Mimi Touré day jàpp na ne fii mi toll ni lee candidat yëpp ñoo mara yem au même pied d'égalité waaye warut am benn candidat boo Ba la comme candidat yëpp laa wax élection yi présidentielle yi ñu dem gaañaa ngay dóor fu ne seen bopp de ku ne ci ñoom a ngay def lu ne ngir am ndam l'indépendant yëgle kaay ne ma o oh, ka doon jiitum um réew mi président Macky Sall faatu na ab malaise ko daal day waaja ne ci malaise ne ci comment tribune yëgle kaay ne ma kaay ma wax la ko mooy éducation et enseignement fii ci réew askanu sunu gaal ma ko nga ne mu ne ma éducation et enseignement un secteur milliards yi nga xamante ni moom lañ ne dañ koo injecté ci secteur bi lée bi ni xam nga ci loon nekk entre massification ak déficit ci wàllum enseignant yi le ci yëglekaay gi ma lu ëpp vingt-sept am ci diggante janvier octobre lu ëpp ca ñoom Côte d'Ivoire fekk baax Guinée ñoo fa ëpp sénégalais yi de les éco yëglekaay ni ma sénégalais kenn du ko ëpp fit ci réew mi lee ma bii sage femme ñu defeere xam nga loolu ko jàppe exercice illégal de la médecine utiliser ko mbir maa nga fa ne fa dang amul autorisation bay ubbi mbaa sax muy exploité ab cabinet paramédical moo ndax Sadio Mané repos médical yi nga xamante ni moom la doon amal moo tax ren jii du a bokk ci ñi nga xamante ni ñoom lañuy ñuy tabb ci lu jëm ci wàllum Ballon d'Or gi lee yëglekaay gi ni ma Sadio absent de la liste des trois finalistes tribune sport ni ma Sadio Mané out waaye Cissé ak Lamine Camara finaliste meilleur jeune joueur Lamine Camara mbaa Amara Diouf kenn ko ciy jël dat bi nu jël def ko combat Gris Bordeaux ak Ama Baldé bu nu wëtuwul combat du am de yëglekaay gi moo ko xamle ñu dem seet sunu lamb yëglekaay mu ni ma Bombardier wax na ne nee na dina xeex ak rëg-rëg te naa ko man maa la gën a fort Ama Baldé ak Gris Bordeaux seen combat ba annulé nañ ko yée lay gote lay Pythagore fu si ne wone seen bopp le 10 ëpp la cëtëtëtëtëtëtët cey lii cey lii sëy laat ordinateur bu baaxee rek ba sama clavier ñu dem ba suba ak jàmm ak salaam yéen a doon déglu seen revue de presse wolof ak Fall Dammel jàngeen jëf jërë jëf jàngeen xarit yeeg jëkkandoo yéen ñi nga xamante ni yéen ngi ñuy teewlu café gi leen koy naan simbuleexu ku ne na kës xëf kës kës këf <laughs> ah, këf kaasu café am këf leen seen kaasu café aca da nga ko naan xës ni ko këfet waaw kaasu café gi da nga naa xës am na noo koy defee nag day tuuru dangay ngay muus da ngay cof rek xës ngay def ni ko kafet yëkkati daal di nit ñi daal di téye kaas bi ba téye ko teg ko ci tuñ yi waaw daal ni ñii xoolal café bu neexee da koy savourer ay jëf maa la wax lii ah laat bool béggee naa la ma yow mi yéen mën ngeen maa tee béggee Serigne Abdou Salam Sarr sama xarit hmm? Maguette Cissé madame Touré borom bés bi maa ngi laa nuyu Maguette Touré encore une fois kontaan naa ci yow waaye ñoom ñoom ñoom ñoom daba ardoog ñoom ñëpp rek Cheikh ñoom ak ñëpp sama gaay yëpp maa ngi nuyu borom vaisselle yi fii ci marché central la bool waaye itam bigi bu baax a baax itam waa Gosaas waa Kaolack Ndangaan Sédhiou maatam ba ci Këcoor waa gis ngeen émission bi ñuy def léegi euh, di ci tudd ay kawteef bu noppee xelli kafe gi. donc di émission boo xamante ni yéen ko taamul seen bopp ñu koy amal ci Thiès Info di wax ni gars yi fu ngeen gis sama affiche rek photo bi comme sama kanam rek daw leen cliquer daal ngeen ngeen gaaw seetaan xool li nga xamante ni moom moo di émission bu am solo boobu waaw mu ne ko émission xool li nga xamante ni moo di émission bu am solo boobu waaw kon nag mbokk yi euh, buñ ca jógee ayca buñ ca jógee ma ne ko buñ ca jógee. dañuy lim ñu commenté ñëpp duñu bàyyi kenn Pulo la ñu fekk ci kaw ñu ngi koy nuyu bu baax a baax Maguette Mbaye di ko nuyu bu baax a baax Adama Diagne di nuy Issa Dangoura di nuyu Keba di nuy bu baax a baax Mia di nuyu Sodo Mbodj di nuyu Laat Diop sama xarit di nuyu item Papa Diop di nuyu Abdou Diouf di nuyu Jibi Ba di nuyu bu baax a baax a baax a baax ay fay di nuyu bu baax a baax Abdou Kane di nuyu Ndumbetin di nuyu Esprit Gossas TV sama xarit xaadim lum lu mu si nee na ma chaque jour man damay damay damay damay commenté 24 décembre bi ñu waajal ko bu baax a baax ca Gosaas kon nag ñëpp a ko waa Cheikh Omar Diop itam di ko nuyu bu baax a baax ma bigee di nuyu bu baax a baax Omar Diallo euh, Prince Mia Diallo maa ngi koy nuyu bu baax a baax maam Xaadim sama xarit la euh, Kiné Diagne maa ngi koy nuyu Modou Lay euh, Fatoumata Bintu Diallo Dame Kunta sama xarit la ma bigee géey sama xarit la Absa Gueye Cheikh Wade itam Baye Modou Yadd di nuyu bu baax a baax Serigne Ousmane Ndiaye sama sama tante itam sama yaay sama lépp xuj Kandji borom États-Unis d'Amérique maa ngi koy nuyu bu baax baax seex euh, Saad bu ah l'incontournable ndaanaan bu mag bi la grand nabier Lamine Ndiaye itam Maodo Kane euh, am na émission bu nekk euh, ci suuf foo xamante ni moom la ñu moom la ñuy titré comme fait bi nga xamante ni moom la ñu mujj def comme biñ biñ njëkk a def le livreur joue au Paris Foot lañ ko titré beneen bi booy jinnee bi jàppat nañ ko jàppaat nañ ko donc mbir mi nii la demee noonu lañ ko titré donc foofu tamit dama fay xelliwaat kafe mais vidéo lay doon damay wax nii ngeen may gis may xelli kafe gi di leen tudd yéen ñëpp ñi nga xamante ni yéen ngi ñuy teewlu ay ca mbokki xarit yi dëkkandoo yi kon ñu jox leen dig daje ba suba ak jàmm ak salaam yàlla na ko yàlla def ci réew mi askanu sunu gaal seen mbokk seen xarit Fall Damel euh, mbokk yi kontaan nañu ci yéen bu baax a baax di leen ñaanal kendalum jàmm jërë ngeen jëf ba samedi ak jàmm ak salaam di suba àjjuma mubarak ni ki tey